Pape Mamadou Seck bokk na ca ñu ñu doon tudd ci mbirum force spéciale takk dex yi newoon ci ay tànkam gannaaw ba mu rëccee woon ca pavillon spécial ga mu newoon doon fa fajoo boobaak léegi ah, ñu doon ko wër amuñu benn xibaar ci moom ay wax doon jibee fu ne ñu naan dañu ko faat chef administration pénitentiaire ga génnoon addu ca janoo woon ak taskatu xabaar yi doon ci andi ay leexal yu mel ne rek xamal askan wi ne kii di Pape Mamadou Seck dafa daw ci coobareem waaye du benn xeetu ñaawteef gu ñu ko fa def ah, fi mu ne ni nag teg nañu ko loxo ña ko jàppee Mbàkke ni ki tey ci dibéer gi ay boori 9h euh, ni ko direction wu administration pénitentiaire ga di xamle ci ab communiqué gu ñu fësal daañu ci ñëwaat ak yéen ci nu mu gënee yaatu.